père ziar naa la. waaw. maa lépp jàmm. maa leen di ziar bu baax a baax. naka làmb ji. waaw làmb ji mi ngi neex rek. vraiment woor nañ ci jàmm. woori ci jàmm di balu ñëpp ak di leen baal ak. Ah, ubbiwaat nañu. gis nañu ne combat yi mi ngi déroulé euh, di yegg ci jàmm aussi certes am na ay jafe-jafe waaye làmb ak jafe-jafe ñoo ànd waaw. noo gisee làmb jeeg xale yi ak ndaw ñi. waaw euh, manque d'organisation daf ci feeñ parce que indiscipliné bi mi ngi am ba léegi ci làmb ji ndax tànk bàyyiwuñu di damm ay chaise ak di sotti ni ñi ay ndox. di xex ci kaw tribune bi lolu indiscipline totale la lolu indi moy lamb bu ba amateur yi gis nga ñu place amateur Ben damu mais fi fan qui club yi tok amatul Ben siège lolu moy wone dafa am ñu bokul ci lamb ñu boole len ci lolu war décision ferme parce que biñu commencé à yi ba ci loo xam ne patrimoine réew mi la ñëpp yow ci nga bokk ci laa bokk gisaguma kenn kuñ jàpp ci loxoom yóbbu ko ñu ne arrêté nañ ko ndax dafa damm sees kon loolu dañ ci war a veiller waxtaanaat mais daal làmb mi ngi dox mais manque de organisation bi ak ñàkk yaru xale yi daal bokk na ci liy rey làmb ji fi ñu toll nii. ana rëg rëg. na Singapour di waajalaat boppam am natam tam élément yu mu war a def. waaye du tere maa ngi fii lépp loo xamante ni war na ko fi mën a am wala mu ñu réaliser ko mu jëm ci côté am ah, pare naa pour waxtaan ceeg ñëpp waaw. dama doon dégg gaay naan Reug Reug Bombardier Reug Reug Tapha Tine la. waa ñu may woo maa ngi am ay pour parle am na ñu ma xam ne sax dañu waxtaan ba tënk waaye manager tant que yolu xaalis mënu wax dara. waaw wax naa daal ak ñum promoteur yu bari tënk nañ ci lu bari waaye daal wanaguñ ma kayit gu ma war a xaatim bu wane ni combat mag diw taxaw na. dama dégg gaay naan Reug Reug Bombardier fu mu ni fini. waa xam nga fini ci ay wax mais tant que contrat amul wala ñu génne xaalis jox la jàppal ni fini ragul ndax loolu mooy taxawal combat am koom te koom mi yeg seegul ci man waaw loolu daal la. démb noo gisee rek kii Lac Rose. ni ma ko gisee mooy dafa perte dafa am lu bari lu mu perte ci làmb maanaam fi dooleem tolloon wàññeeku na seet naa ne amoon na blessure faju waaye fraîcheur physique bi mu war a indi ak état de bi mu war a am ndax mbër la moo xamante ne agresseur la moom dalay agressé doo ko bëreeg yow te loolu doole moo koy def ak rapidité te gis naa ne rapidité bi wàññeeku na doole ji nekkatul ci moom fraîcheur physique bi nga xamante ni war na ko am amu ko ba moo tax combat yi nga xam ne ñi ngi ko koy jox ñëpp ni mu koy perte da ciy wane jom wane ci ngor waaye ni mu koy perte mooy néew doole ak manque ay repère ak fraîcheur physique mooy tax muy ñàkk ay combat loolu nag beneen jàngat la est-ce que warul xoolaat taxawaayam ak encadrement am ñu yóbbu ko mu defaat ay préparation am état de forme bu baax bu tax mu ñëw war a ci làmb ji parce que soo xoolee combat moom Moussa Ndoye bi mu koy perte da nga xam kii daf ko ëpp doole kii daf ko gën a gaaw combat démb bi tamit boo ko gisee dafa dem ba jeex takk ci làmb ji joxe boppam ñu daan ko loolu nag bu la dee dal ngay tegle ay defet ci koo xam ne dañ doon xool ni heure bii sa digganteeg ñoomin Ama Baldé la ñu wax wala Boy Niang tey jii yeggatuloo foofu war na mën a xoolaat boppam defaat yeneen préparation dellu si ci làmb ji parce que Lac xale la waaye dafa am ay manquement yu nekk ci moom te bul liggéeye war na ko mën a jotaat. jërëjëf Père Palla. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di am ci yéen contentement. sa garab bu rafet na. waaw ah gars yi de ñooy ñaw di ma jox rek. wala ma gars yi. waaw ah, leen boole yéen ñaar ñëpp <laughs> jaajëf. ziaram. noo gisee làmb ji. waaw ça de làmb ji ça va comme d'habitude rek. chaque dimanche en tant que amateur ñu ñëw seetaan si booy yi bëre ah indi mbooloo am na tuuti ay déballage yuñ ciy gis mais yooyu dafay laaj waxtaan daal làmb dafa laaj concerté wu di waxtaan soo xoolee comme ni ko góorandoo doon wax léegi boo xoolee stade bu toll nii ñaare projecteur fii benn projecteur fii loolu c'est pas normal mais loolu lépp li ko indi mooy entretien stade bi il faut mu am directeur maanaam ku entretenir ñi fiy tëgg ñu xam yan condition la ñuy tege pour ñu tëgg xaalis bi ñuy fay ñu man di di entretenir stade bi xam nga di ko defar fii nga toog nii xeetu douche bi mi ngi lay fekk fii nga toog nii ay invité ñëw ngeen di leen ci làmb ji loolu aussi c'est des choses yoo xamante ne il faut ñu nii di ko wax waxuñu ko nag pour dara dañ koy wax pour ñu gën ko bàyyi xel gën a mën a defaraat ngir mi mën na ñoŋ waaw gis nañ yow miy toog promoteurs yi bu ñu dee cent quatre-vingt yëpp yàlla yàlla ñu sponsorisé waaw loolu c'est normal xam nga wax naa ko waxaat na ko kaa de la lutte donc man su ma yoree dara loo xamante ni war na man a apporter benn pierre à l'édifice ci làmb donc loolu def ko ça ne coûte rien loolu mooy waral ñun suñuy nawle lañ suñuy morom lañ suñuy xarit lañ donc ñëw ànd ak ñoom ci làmb ji fexe ñu jàpp ci ñun ñu jàpp ci wàññiwul dara parce que ñun en tant que duñ ko def en tant que promoteur dañ koy def en tant que un jeune boo xamante ni dafa gis ay moromam ñuy liggéey ci benn mbir mu war caa mën a dugal benn grain de sel mu def ko surtout waaw. ngay dugal sa xaalis si làmb noo gisee ndaw ñi ak la ngay wax ndaw ñi. ce qui est plus important daal c'est de nit ñi ma commencé di gis ndaw yi ma commencé di gis Sénégal neexuma violent trop violent soo xoolee ci làmb lee gis nga ko seen diggante ak GMI yi te kenn ku ci nekk dañu war a xam ne force de défense et de sécurité bi dañ fi nekk pour assurer suñu ay sécurité donc ñoom ñooy ñuy jàppante war naa bañ a mën a ñàkk ba muy indi yenn problème yi donc ndaw ñi li war a xam mooy lépp lu waay di am du kenn moo la koy may amul benn président bu fiy toog assurer ndaw ñëpp ku la ko waxit da lay wax nu la neex rek li ñu war a def mooy kenn ku ci nekk jug xam ne la soleil brille pour tout fii koo fi gis mu nekk dara am na fu mu jaar door am fu mu egsi am na ci ñoo xam ne c'est des self-made men qui sont déparés pour rien du tout pour arriver ci stade bi ñu nekk ñu jug gëm seen bopp wàkkirlu lu jaala te xam ne yàlla mooy maye mu Mountakha dama dégg mu ne wërsëg kenn ku ci nekk la nga war a am yàlla bind na ko sa jë ak koo mën a doon donc nañu jug sabablu nekk ci rek yàlla baax na dañu bañ a jël suñu mbir nag di ko wér ci kenn yàlla moo yor nit ñi saa yoo jëlee sa mbir teg ko ci kenn yàlla bàyyi la moom du président du ministre du directeur du kenn jug nekk ci li des yàllaa sa doom ji nga jur léeg mu nekk lu sa xaalis kon yàllaa yor nit ñi waaw. jërëjëf PDG jaajëf Faye